Les rideaux baissent ce lundi 29 octobre sur la 124e édition du Grand Magal de Touba qui a polarisé environ 5 millions de personnes. L'événement religieux de dimension internationale qui a enregistré des pèlerins venus un peu partout dans le monde. Bienvenue, chers internautes, sur ANTV pour la dernière de notre séjour qui va se terminer par un élément en complicité avec Mathis Sankaré et Bounama Diop qui ont requis des avis sur les pèlerins au lendemain du Magal de Touba. màggal gi moom neex rek macha allah yal nañu ko màggal ay déwéni déwéni déwén saa boroom dimbali nu sëñ bi li mu doon jànkoonteel nu am ci la gën a koree sunu njort. màggal gi de macha allah kontaan rek lañ ci am di wax ne sëñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te dañ ne ñaq jëriñu lu waaye ñaq lu ne jariñu ba tax na dañ ciy kontaan daal bépp coono buñ ci am rek ñoo ngi ñaan yàlla fulal ñu ko. borom màggal gi. màggal gi moom macha allah dafa ala dawme ñu naan dafa ala dawme Serigne Touba daal amul moroom moom te bis bi moom képp ku ko teewee rek jàpp naa ne daal boo ñibbee di nga sant sa yokkute gu mag Serigne tubaa daal nee na màggalam gii képp ku ko màggalal am nga yoonu aj am nga yoonu umra am nga yoonu waaw lépp daal macha allah daal yoon yoon bi daal sant yàlla rek. Sëñ Touba li mu waxoon rek waxaan yàlla bàyyi bi suba te yaaritin la day lan te bu koy wutal moroom nag daa xamul dara waaye amul morom moom Sëñ Tuubaa moom kenn la daal kenn la fa ñu taxaw nii fii mooy Touba waaye boo jéggee ndox yi jéggi ñaari ndox da ngay dugg ndar boo duggee ndar da ngay fekk xaadimu rasul signé fa lislaam dëggal lu ne. yàlla ji suñu borom keroog bi muy siñe suñu borom a ngi yebal jibril naan ko xawma looy bëgg siñe waaye lu féete penku ak sew amatul kuy jaamu suñu boroom jinne yi nga xamante ne nag màkk la jóge bu nu jógee daan fa julli suba départ bu ñu déparé fii la ñuy jullee timis muy Touba soroor bii ngeen gis ci kaw muy baa Lamp Fall Baabul Muridiina Sëriñ Fallu ci kaw jeexlukaay ba da ci lal ay moquette ba mu jeex jinne bu mu mënti doon fa ngay dal fa ngay wàcc kon Sëriñ Touba li mu am ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun Sénégal téeku ci benn buum bu ñun ñëpp àndandoo woon ni jërëjëfe Sëriñ Touba kon xewali du xaj ci ñun moo tax Sëriñ Touba mooy Bamba fépp Bamba partout balaa nga koy xam nga dugg ci nasaraan dem Allemagne dem Belgique dem Mallorca dem fu mu mënti doom boo demee da ngay mujj taxaw yow nangu Serigne Touba rek la ñun ñi Bamba moo mom moom Bamba Bamba moko mom moom kon jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe yow bi ko wax. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la dimension de Touba et la dimension du mouridisme, et quoi qu'on puisse dire aussi, je pense qu'on devrait effacer, euh, c'est-à-dire cette barrière qui existe entre le mouridisme et le tidianisme Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, Seigne Touba, Cheikh Bamba a beaucoup fait pour l'islam. Cheikh Hamadou Bamba n'a pas euh, manqué de contribuer euh, pour l'expansion de l'islam. Parce que je vais même évoquer, en tant qu'étudiant qui a fait études africaines et postcoloniales à l'université Anta Diop, je vais évoquer la théorie de il fit c'est un philosophe américain. était assenti n'a pas manqué de dire que Cheikh Hamadou Bamba, Bamba est le plus grand ah, écrivain de l'Afrique de l'Ouest. Il said that Bamba a beaucoup écrit, Bamba a écrit des tonnes en Afrique. Il fut un grand écrivain c'est le plus grand prolifique écrivain en Afrique de l'Ouest, Bamba. Parce que bon nombre d'étudiants ou bien collégiens ou lycéens, quand tu les demandes qui est le plus grand écrivain sénégalais, euh, ils vont juste vous répondre que c'est Senghor. Ce qui est faux. Des, théoriciens, des scientifiques, des chercheurs l'ont découvert, comme vous l'ai dit, Molifikete ce philosophe américain qui a dit que Bamba est le plus grand écrivain en Afrique de l'Ouest. Donc euh, moi je pense qu'il n'y a aucune différence qui existe entre le mouridisme et le tidjanisme parce que depuis que je suis venu ici, je n'entends que des versets coraniques, des, euh, <coughs> des récitals de Coran. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est la dimension aussi de Touba. Si vous voyez cette grande mosquée, Touba aussi aujourd'hui a une autre dimension en termes euh, de religion, en termes euh, <coughs> de d'islamisation, vous voyez. Donc franchement, euh, je ne manquerai pas aussi, si Dieu me donne la santé, je ne manquerai pas aussi de venir célébrer les prochains, le prochain Magal de Touba. Oui, franchement. Magal gi ah wax la Magal gi kéemaaneeti ngir euh, safar gi rek da koy wone waaw mané bi duggé ci 18 safar bu duggé ci wéru safar rek ci nga xamni kenn du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngir daw da koo firndeel xam nga tey jii ndeysaan bu demee ba njaago yi tijaan murit xaadir laayeen ñëpp di safar kon nga xam ne weer wi màggati na màggal gi nag dafa ala doome parce que màggal gi mooy le huitième xalif de Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul muy sëñ Mountakha Mbacké nekk deux màggal 2018 si signifie lu bëri moo tax màggal gi ñu ngi ko tuddee la màggal hexagone kon màggal gi dafa kéemaan dafa yéeme dafa doy waar waaw man mii rek jërëjëf sëriñ Ba man su ma xayma rek dafa may jox huit am na nu ma koy calculer si si si France ni daf mooy jox huit moo tax kon tey maagal gi nii nekk ne maagal xam lépp lu fi waaye fas boo ci dëggoo rek borom bi mën na la ko defal te maa ngi ñaan si doole Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim lépp lu fi waay ñaan ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp yal na leen ko borom bi defal maagal gi moom neexaayo moom boo koy wax yow sax dangay ngay neex maagal gi dafa weesu neex waaw maagal gi neex na trop kenn du Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu leen di jaajëfal bu wér seen télé bi yal yàlla def mu jëm kanam ku tedd ki dem ba doole leen li ngeen di yóotu ngeen def ba jot si Bamba Khadim tous dans l'enthousiasme et l'allégresse ont commémoré dans la plus grande ferveur récital de Coran le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul le fondateur du Et c'est prend fin notre séjour à Touba sans oublier de remercier l'équipe technique qui a été déployée sur le terrain notamment aussi remercier Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarima Ahla, Serigne Cheikh Oumi, Ibn Serigne Fallou notamment Ali Diop et son daïra c'était Mbar Fall, Mathis Sankaré, Bourama Diop, Aliso, ici à Touba pour ANTV. Non, le dor. Hein? Je commence, hein? Ok. Les rideaux baissent. Ça vient. Ok. <laughs> C'est bon, hein? Wow. Wow. Les rideaux baissent. C'est lundi 29 octobre, sur la 124e édition du Grand Magal de Touba, qui a paralysé environ 5 millions de personnes. Événement. <laughs> ah. Ok. Bienvenue, chers internautes, sur ANTV, pour la DER de notre séjour qui va se terminer par un élément avec la complicité de, waaw du mat 100 ok.